ngeen door nu bal kon nag loolu affaire bi fan ngeen ko teg mu ne ma daal ñun xamuñ dara dana door bal bi rek ma ko bu ngeen bal bi ci condition bi naka ko dóoree mais ñun a woon gannaaw dem ngeen door nu bal ci bi mën naa ñëw si man bal bi ah, la ci weer bi la mais man na agsi ci ñun ok mais c'est grave hein c'est grave c'est grave affaire bi grave na parce que leader démocrate démocrate demee ni parce que ñun dañuy jog pour bëgg jàmm xeexuñu sànniwuñu xeer defuñu neen dañoo bëgg jàmm wu la ñom doom dara quoi mais jamm la ñu wut kon nak jamm la ñu war a doxal ci réew mi parce que nous citoyen man may Matar Ba Matar Ba la tuddu ma ngi jóge Kaolack ñëw fi mais danoo war a dox ci jamm ci liggéey la nek sama liggéey la nek kon nag dana war dox ci jam. waaw ok merci yalla neen yalla defal jam. merci beaucoup. maa ngi tudd non violence je suis l'initiateur de l'association nationale pour l'éducation et la paix bon limay ñaax suma askan di ñaax ñi nga xamé ni tay moy population sénégalaise bi euh, dama bëgg ñu and ak dal. parce que damay faral di wax ne jàmm gën jayante jàmm gën jëwante jàmm gën jamaa jàmm gën jaamaarloo te lu dul jàmm jàmm ko gën képp kuy doomu réew mi ñaaw woo na la si jàmm ay xam nga fa muy commencé waaye doo mun a xam fa muy yem euh, sama laaj nag benn laaj dong la dama ko jagleel ñëpp ñi nga xamee ni te ñoo nekk pouvoir ak ñi nga xam ne ñoo nekk opposition ak kilifa diine yi nga xamee ne ñu ngi toog fa ñu toog ñiy wax waxuma ko waaye ñi nga xamee ne dañ ne ñooñu laay waxal damaa bëgg ñu génn wax ak askan bi wax ak population bi wax ak état wax ak parce que nag damay wax ne jàmm jaboot jàmmay mbokkam waaw Hann TV li ngeen def rafet na xam ngeen ne tey euh, ay milliards yu bëri ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy ñàkk si li nga xamee ni mooy sunu koom réew xoolal bitig yi nekk Sandaga yëpp ñëpp a tëj ñi nga xamee ni tey bu ñu xëyul euh, du jox seen euh, waa kër dépense waaye duñu leen du ñu am sax luñu lu ñu dundee am na ñoo xam ne waroon nañoo dugg si Dakar war a faju yi dem si hôpitaux yi loolu yëpp ñu xañ leen ko ngir li nga xamee ni tey euh, nit ñi xamuñu sax li nga xamee ni mooy yoon ak loo xam ne nekkul yoon kon dañu war a taxawaat xoolaat suñu bopp xoolaat suñu réew xoolaat suñu doxalin en maa ngi leen di gërëm di leen sant

jaxarloog waa askan wi jaxarloog euh, waa député yi jaxarloog nguur Macky Sall forcing bi tey du jàll ndax ti xoolal coono bi tey gis yéen a gisandoo yéen journalistes yi Macky nag bu demee moom moom mi wala moom euh, constitution bi moom la appartient wala famille moo ko moom wala boog euh, benn basin la boo xamante ne soxna moo moom da koy taaye saa bu ko nee mu tey lay wóor tey duñ ko bàyyi dara fii ba jant bi soo ñu ngi fi bu leen neexee ñu nag policiers yi ragaluñu leen te ni bi lañu respecté policiers a policiers yi ñoo war a njëkk a xoolal xam askan lañ fi nekkal pour saytu kaaraange askan wi mais da nga gis ay nit ñu taxaw rek nga ñëw rek sànni lacrymogène Macky Sall moom daw na waaye na xam ne xoolal ñun ñu ngi fi ñun duñu daw Sénégal lañ gëm ñun duñu daw on va fuir on va aller jusqu'au bout kon donc xoolal bu yeboo man nañ ñëpp si taxaw taxalaw ñun assemblée nationale lañ jëm par A ou B fa lañ jëm ndax xoolal Sénégal moo ñor vive la démocratie Sénégal moo ñor maa ngi tudd Adja Samir Seck coordonnatrice France Dégage euh,

dirigeant yëpp japp nañ leen loolu lañ ne du yoon au nom de la république nañu bàyyi li ñuy def et puis nañu ñu ngi taal fu nekk nañu bàyyi suñu leader yi ñu jàpp ay citoyen la ñuy manifester pacifiquement loolu laa ci bëggoon wax Ousmane Wade coordinateur de France dégage parce que sànq comme ni ko Adja waxee nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe dans ce pays parce que loi bii nii bu jàllee leneen lay jur parce que nous, en tout cas France dégage dina def lepp lu le mën ci kaw terrain bi dinañ wacc dinañ wax dinañ def li def et puis fi ak suba fi ba suba paré wuñ pour dellu suñu kër yi nañ ñu japp ñun ñëpp wala ñu xam def. Les politiciens ne font même pas 10% de la population. Est-ce qu'ils peuvent nous prendre en otage Est-ce que ce qui s'est passé euh, dans les euh, élections des députés doit se répéter dans ce pays-là est-ce qu'un gars, n'importe qui, doit venir ici parce qu'il a, il a pu rassembler 25 millions ou bien il a été financé par un terroriste Quand on ramène la chose aux populations, je pense que c'est ce qu'il vaut. Quand on ne peut pas avoir 1%, 1% de l'électorat, on ne doit pas dépenser 400 millions pour t'imprimer des bulletins. C'est ça mon avis. Merci. Je suis pour, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est atteint de faire, euh, qu'on fait à l'Assemblée, ça, ce n'est pas le dernier point. Il y a les lois, il y a la Constitution, mais il y a une loi d'application. Ce qu'on fait là ne, ne veut pas dire que tout sera euh, fini. Il faut que les gens reviennent à la table et qu'ils discutent des, modalités d'application de cette loi. Et ça, quand on renouvelait la Constitution, tout ça était prévu. Mais ça, il nit. a ne soit il n'a pas des arguments ou bien et c'est ça qui se passe moi je suis quelqu'un qui paie 400 000 par mois d'impôts par jour je ne veux pas que tout cet argent-là doit être utilisé pour euh, régler des problèmes, mais ce n'est pas pour des politiciens là. Ils se font le tour. Merci. Les gens qui sont tapis dans l'ombre sont comme ça, ils sont des gens comme ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On vient de sortir d'un référendum. Tout ça, on devait le régler depuis le référendum. Ou bien aussitôt après les législatives. Pourquoi on ne l'a pas fait On reste jusqu'à quelques encablures de la présidentielle pour que Macky Sall nous sorte encore un tour dans son, de son sac. C'est ça qu'il faut dénoncer. Voilà, il y a des gens comme ça, des citoyens de, de, cet ordre-là, qui font retarder le pays. Lui, il ne fait que défendre son fromage. Bah, d'ailleurs, les masques sont tombés. Il dit qu'il il paye 400 000 francs d'impôts. Alors, alors, et les Sénégalais, eux C'est ça le problème. Ils ne font que défendre leurs intérêts crypto-personnels. Nous devons dépasser cela. Le Sénégal ne mérite pas aujourd'hui ce qui se passe. C'est ça la vérité on est dans, une, dans un régime de dictature c'est ça la vérité qui ñu jàkkaarloo c'est un monstre ragal la ragal kenn du ko jox nguur ragal moo tax lii mu def ko mais xamul ne fii jusqu'à l'extinction du soleil créé lay mujj moom wala of nag foofu laa man maay René Pierre Yomé di responsable AP Dakar Plateau di président du mouvement pour la défense de la République du chef de cabinet ministre Souleymane Diop Ce qui li xew fii dafa dafa ñaaw Sénégalais yi ñëw pour liggéey mais tey marché Sandaga bi commerçant yi suñu mbokk yi kenn mënu liggéey ñun waa Dakar Plateau ni ñun du ñu daw du ñu taay bi jàmm moo fi am ñu def Sénégal jàmm ñu Sénégal ben bopp la dëkku Alaaji Malick Si la dëkku Sëñ Touba la dëkku Limaamu Laal na jàmm am si réew bi loolu ñu ñaan na am bi pour la démocratie sénégalaise. Ça, c'est une honte pour notre pays. Non, disons non. Disons non. On est prêt, je suis prête. Je suis prête me sacrifier comme l'a fait Mamadou Diop. Je suis prête à me sacrifier pour que la démocratie règne, pour que mon pays soit parmi les démocraties les plus hautes de la, du, du monde. Disons non. On se bat, population du Sénégal. Réveillez-vous. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se lutte pour que les politiciens ne nous manipulent plus. Pour que les politiciens ne nous manipulent plus. Pour que nous prenions notre destin Amen. Le pays ne va plus. Non, oh, non, non. On vit dans la merde quoi, en Afrique, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Je suis vraiment Li ñu koy nakalu ñu koy ñaawlu parce que li kenn andu ci kenn andu ci mbir boko ko bëggee def te askan wi ci dang koy retirer waaw parce que ñëpp ngi manifesté ndax benn loi Moustapha Niass nak lepp moma lu jinn njaag Moustapha Niass ay njaag day mag ba paré te nungul xamné mag la na bàyyi ndaw ñi ak réew mi ñu defal doxal suñu réew waaw Macky Sall nda nga xam ne lii muy def nii lii baaxul waaw am réew kenn du ko yore nii am réew dama koy teg ci démocratie teg ko ci xam-xam teg ko ci diine waaw man loolu la laa gëm quoi wasalaam